Ramdan Junior moo ñëwoon ginnaaw dafa Leer numéro 2 moom la ñu jàkkaar lool eh doonte nañu Tapha Leer doon Tapha Leer Ramdan Junior jël na Tapha Leer ko yewi sooy na tegal na ko 16 Tapha Leer rëcc na Tapha Leer Ramdan Junior dóor Tapha Leer dóor Tapha Leer ngay dóor daan caxabal na ko mu bañ Tapha Leer Ramdan Junior moo ngi koy xëcc ca digg géew lu mu bëgg a def Tapha Leer Ramdan Junior Tapha Leer ngay dóor fayu waaw moo koy xëcc da koo bëgg a xawa lu ko def xam daal lu mu bëgg def am na lu mu bëgg a tànte de da koo xar waaw waaw da koo xar tega ko seet da koy mbot da ngay daanu lu am am na lu am de xaadim arbitre bi na Tapha Leer doon na ko gauche droite Ramdan Tapha Leer jël na ko Ramdan jël na ko Tapha Leer rocceeku waat na ñoo ngay xeex ñoo ngay xeex ñoo ngay xeex dóor dóor baadu yàbb ba jël na ko làmb ja xanaa dina jeex takk na ko da koy tegal 16 mbot na ko dina la woon doomu da daanu Tapha Leer daanu na Ramdan daan na ko ba toog ca kawam raam taantaan na Tapha Lew ba toog ca kawam ma raam ma ngay raam ma dem jóg na waaw